ci turu président de daara sëñ Bada waaw aouzu billahi aouzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen se di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di nuyu monsieur le préfet ak euh, docteur mbay ak monsieur le maire ak euh, Sidi Bara mi nga xam ne moo indi doomu mel nii ñuy wax nag ci turu daara sëriñ daara yi nekk ci commune du Kébémer yëpp den wax ne lii nii ñi ngi wax ci seen tur ñi sant doomi dëkk bi yëpp di sant euh, kilifa dëkk bi monsieur le maire ci don yi ñu indi ci sëriñ daara yi ndax euh, lii dafa deme noo xam ne tawat la joo xam ne suñu boroom mi nga xam ne mooy tege ab jàmm moo ñu ko teg loolee nag lekk lañ la la la ca war mooy dellowaat ko ko ñaanaat ko yàlla ngir mu tegg ko day ñaan ñun suñ daar yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Kébémer lii nii am na solo lool delloo nañ ko tam fañ ko war a delloo ndax ñun amuñu lu dul ñaan te toll nañ foo xam nii ku mel ne sëriñ daar yi seenu seen seen seen seen seen seen seen seen kii seen seen manuwaay maam seen seen seen ko waxee sax seen seen taxaw seen seen seen seen néew doole tax na maa mënuñoo am fenn foo xam ne fu ñu mën a wéeru kon bu ñu amee doomi dëkk bi ñu taxaw ngir dimbale sëriñ daar yi nga xam ne ñoo nekk fi ngir jàngale kon loolee dañ leen ci sant bu baax mu mel ne ñu bëree bëri taxaw nañ ci eh, doomi dëkk bi ngir dimbale sëriñ daar yi kon lii dañ ci sant ñëpp di sant nag sëriñ ba Sidi Bara mi nga xam ni moo indi lii nii ngir jëmalaat ci ci daar yi ba tax na Eh, ñiko ko ñep kenn ko ci nek wax deug yalla mam taxaw nga def tam lu melni ni ku melni serigne mam bara monsieur le maire jël na ay dépasse yo xamni ni ko ci serigne daara yëpp kon bu si Sidi bara ñëwaaté andi lu melni ni jëmalaat ko daara yi kon Ibra di sant tamit Ibrahima Cissé Ibrahima Sy ak eh, soxna si Lo ñing koy sant ñing koy sant bu baaxa baax di sant ñëpp dal dina xamal ne mom li ni ñun amuñu lu dul ñaan. ay siñ daar lañ nee nañ doole lool kon buñ buñ demee delluwaat delluwaat delluwaat lépp ci suñ borom na ngeen xam ne mbir mi ci boppam incha allah rabbi ñun liñ féetewoo mooy ñaan moom ñi ngi ci ñaan ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa